waaw papa yaa def day ndey falang waaw. champion. doomu ndey sotu falang ah. waaw. ñu ngi lay. waaw fay. way sant yàlla baax julli si nañ avant may ñëw si gàmm si yow laa njëkkoon ñëw fay foo toll nii. waaw instant yii naaj instant yii moom bu dee moom naaj ñu ngi si entraînement yi. ñu ngi si kawam daal di liggéey comme gars yi ni def rek liggéey denc rek waaw. combat. non instant yii amuma combat mais bii passé le 23 juillet. 23 juillet bii passé si combat Ardo ak kii Saba quoi man ak euh, Boy Ndios man Boy Ndios man benn bi daan caatu yarax waaw maa daan waaw. kon instant looy si mbëri la xaw a tagee rek xam mbëri gars yi dañuy fu nooy quoi. te làmb ji amul fu nooy looloo. gars yoon yoon lay wut yoon. waa gars yoon lay wut xam nga fu mu gën a nooyee foofu la ñuy foofu la dugg mais xam nañ ni booy tàngay ni boo si duggee gain pour nga génn si problème lay doon moo tax gars yi dañuy wër wër dañuy wër wër loo rek. léegi <laughs> fu mu foo jëm yow. essence yi combat Ardo ak ak ak ak daan bëgg naa ko ay Mor Kankang ñoom ñëpp booy ñoom ñaabu ndaw booy ñoom ñëpp parce fan foofu laa bokk. bu ndaw la waaw booy ñoom ñaa bu ndaw tout booy yooyu yëpp waaw pare naa pour bëre ñooñu ñëpp. am na combat. waaw mais suñ avenir u làmb si la bokk moo dañoo bokk foofu quoi incha allah waaw di ko ñaanal jàmm rek moom ñaa bu ndaw parce suñ mbokku taalibe tamit ko mais tamit làmb boole pare nan de incha allah waaw mooy loolu. waaw gàmmu nag ñu ngi doon waajal ak moom bu baax di yegg si duni di entraîner di dem saal xam nga di bokk ak moom lu ne waaw moom nag combat bi waajal na ko waajal bu baax entraîné si nag bu baax a baax a baax combat bu mu fonk la bu mu respecté waaw te xam na tamit combat bi fan la ko mën a yóbbu quoi. Mhm. combat dafa nar a gaaw wala fa nar a yéex non combat bi moom du gaaw combat bi dina jël temps tuuti parce que ñaari mbëri faaw ñu xeex doo a bëre. non naaj ñun pare nañ fépp pare nañ si zaahir pare nañ si baatin waaw. pare nañ si baatin loolu